ministère de l'Intérieur bi nga xamante ni euh, rendu na donc euh, euh, a rendu public hier l'arrêté portant publication des listes électorales pour les législatives à venir donc le juillet euh, prochain Birahima Baye leen ngeen wax seen xalaat ak Hadj Mansour peut-être sur cette décision bien sûr venant du ministère de l'Intérieur. Bon, man dama jàpp ni dans cette décision le ministère de l'Intérieur a tenté je dis bien tenté de faire ce qu'on appelle couper la poire en deux maanaam dindi listu Yewwi Askan Wi dindi ah, listu suppléant wu Benno Bokk Yaakaar et c'est là où moi j'ai un problème par rapport ak listu suppléant wu Benno Bokk Yaakaar yi nga xam ne dindi ni ko parce que dafa am euh, depuis démb ñu bari ñu ngi di ay juriste di ay puriste xam lu jëm ci wàllu yoon euh, dañoo indiwaat li ñuy woowee jurisprudence mooy loo xamee ni mës na fi am ak naka la ko conseil constitutionnel réglé. ban période la fi amoon euh, on est revenu sur l' année deux mille deux mille un le 23 mars 2001 pour être euh, exact ci benn décision boo xam ne mu jógee ci conseil constitutionnel muy décision numéro un barre E barre 2001 du 23 mars 2001 ci jurisprudence lu ñu wooyee Arello. Alelo ci parce que Alelo dafa nekkoon ci ñaari liste euh, ñu ne ni nekk bi mu nekk ci ñaari liste taxul ba ñu ne ni dañ ko war a annuler yooyu les listes parce que liste dañuy wax ndax dafa complet wala liste boo xam ne dafa euh, lu ñu wooyee euh, incomplète maintenant pour une liste complète ci lu ñu jàpp Maintenant, ce sera au Conseil constitutionnel de dire le droit sur ce plan-là. Liste complète mooy day am titulaire am suppléant léegi est-ce que mën nga jël liste boo xam ne titulaire donc nga fa ne. Mhm. nga ni liste suppléant bi dindi naa ko. ñenn ñi duñ ko doon euh, jël exemple ci wàllu football dana ni euh, mënoo am onze joueurs kese te doo am benn remplaçant. léegi bu fekkee ni remplaçant wala benn ci joueur yi dafa gaañu sur le terrain mën nga ko génne ñu ne la norme FIFA dañu la naan ni jusqu'à neuf joueurs sur le terrain mën nañ football même bu dee amul euh, li nga xam ne moom mooy ay euh, euh, banc mooy remplaçant yi mais ce qui est valable en football ne l'est pas en matière de droit et surtout bu fekkee ne dañoo jàpp ni conseil constitutionnel dafa war a liir le droit et dire le droit concernant ces deux cas ñu ngi ko doon wax fan yi la ñu weesu conseil constitutionnel forme bi la doon lay xool comme forme bi mu doon xool moo taxoon mu ne bennoo mu ne yeewi askan wi ci département Dakar dans la forme am ngeen sañ-sañu remplacer ñi ngeen bëgg a donc mu loolu féete boor dans la forme tamit tey conseil constitutionnel ñi nga xam ne ñoom ñooy waaye yeewi askan wi euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy opposition ñii ñu rejeté seen liste am nañu sañ-sañu dem ci kanam conseil constitutionnel parce que ils ont 48 heures pour euh, euh, dem ci euh, recours ci lu soxal li ñuy publier di arrêté bu ministre de l' intérieur bi nga xam ne moom mooy joxe ñi nga xam ne ñoom ñooy bokk ci yooyu les élections rôle ministre de l' intérieur fii bari na coow parce que ñu ngi naan ni dafa féete boor ndax li mu dindi listu suppléant wu Benno Bokk Yaakaar ci liste majoritaire bi mais pour mën a combler dindi ñi nga xam ne ñoom ñooy waaye Yewwi Askan Wi seen liste nationale ce sera au conseil constitutionnel de dire le droit te buy wax liñ ñu naan dire le droit dafay dellu si ci jurisprudence boobu ma doon wax parce que am na plusieurs motifs de rejet yoo xam ni tey mu ngi ci liste Benno Bokk Yaakaar xam nga ñu naan quarante deuxième ak quarante position Euh, respecté wuñu parité mais beneen motif bi nga xam ne yeewi ask euh, benn euh, yeewi askan wi wax na ko benn gëm sa bopp wax ko mooy bi ñuy déposé dañoo déposé un surplus de parrain mais ci wàllu parenage yi hmm. ndax dafa am minimum am maximum ñu déposé maximum bi ba teg ci benn donc conseil constitutionnel fii dina am sañ-sañu xool si forme li nga xam ni moom la ministre de l' intérieur joxe comme décision ci arrêté bi nga xam ne génne na ko nga xam ne dafa dàq Benno Bokk Yaakaar ci suppléant am ba pare dàq Yewwi Askan Wi ci li nga xam ne moom mooy liste national mais bu dee dañuy dellu soit ci jurisprudence yooyu ñuy wax euh, double présence su nit ci ñu ne la mu ngi liste professionnelle euh, ci département bi mu ngi ci liste nangam taxul list bi bon waaye ndax liste complète am na wala list incomplète foofu la ñuy dellu si ci ndegam suppléant ci liste complète lay bokk te dépôt list yooyu ñenn ñoo mën wax ci ndax complet na wala complet wul muy direction générale des élections commission de réception euh, des euh, parrainages et des listes des candidatures et ñoom seen liggéey boobu ça devait se faire avant même tey ñuy génnee arrêté boobu jógee ci ministre de l'intérieur ça veut dire tey ministre de l'intérieur bu génne arrêté du ci boole liste yi nga xam ne direction générale des élections jàpp na ni liste incomplète la donc loolu du bokk sax ci li ñuy dugal ci biir arrêté bi maintenant ce sera une bataille euh, de d'avocats de juristes pour Yewwi Askan Wi pour les autres coalitions de partis qui se sentent lésés dans dans cet arrêté du ministre de l'Intérieur qui vont devoir mener devant le Conseil constitutionnel pour que kooku tamit su muy les sept sages plutôt euh, lire et dire le droit, le droit concernant justement euh, ces parce qu'il y a beaucoup de quiproquos il y a beaucoup de quiproquos dans, dans ces là parce que euh, bu dee ci yoon la ñuy xool dañ la naan euh, yoon am na foo xam ne lii ñu def ministre de l'Intérieur def yoon waxu ko. yoon waxu ko Hadj Mansour. Mm-hmm. Euh, xanaa euh, bàyyi la nga sànni si sa euh, kàddu concernant surtout le cas Yewwi Askan Wi donc on la question de savoir est-ce que tey jii nii ak erreur matérielle yi nga xamante ni jot na am ce que mën nañu xalaat ni Yewwi Askan Wi moom blacklisté nañ ko tout simplement ci législative yi nga xamante ni ñu am nañu chance peut-être. man li ma gëm mooy li ma démarré woon bu njëkk. muy ba léegi am na position bu politique yi taxaw. te dañu koy nëbb seen électeurs yi nekk ci biti te ba tey gëm naa ni itam am na ñu umpuwantewul ci diggante ñi ñi wuyoo opposition ak ñi wu ñi wuyoo pouvoir ci seen wàllu doxali doxalinu politique am na jotaayu naanu ataaya bu ñëpp fekkewul maanaam réeroowuñ réeroowuñ coow li coow li am na ci ñoo xam ne dañu ni tekki seetaan mm-hmm. te duñu ay spectateur ay acteur lañ comment c'est très clair askan wi lañuy ñuy fawee rek. Euh, bi ñu soo commencé ci lan la ñu commencé woon ak bennoo yow ku la waxoon ni la tey euh, il y a de cela deux semaines ku la waxoon ni la liste départementale bu yewi askan wi mooy jàll bàyyi fi liste nationale non mënoo koo gëm loolu ñu wóolu ñëpp ñëpp ñi nga xam ne ñuy topp politique di ko jàngat amul kenn ku sa xel nàccoon jëm ci wàll boobu ni liste départementale yewi askan wi mooy jàll. bàyyi fii listu nationale loolu kenn xalaatu ko woon ne woon naa leen dina am dina am yeneen surprise yu bokkul ak yu ngeen ça du la tuuti de li am ni du la tuuti dañuy woote ay manifestation woote ay fitna def conférence de presse contre conférence de presse yoo xam ne ay 22 heures ay minuit bu leen gaaw a fàtte loolu ci ni listu département bu Ndakaaru du jàll Barthélémy Dias dem direction générale des élections jàppante fa affaire bi def benn tolee bu doy waar ku nekk yëngatu ñu dem ba ci biir ñu minimiser loolu Ousmane Sonko def déclaration dédouane Déthié Fall Barthélémy Diaz mhm. Khalifa Sall ba noppi waxaale bi mu wootentee téléphone ak xalifa Sall wootentee téléphone ak Barthélémy Diaz mais mënoo woon a gëm ni boobu Ousmane Sonko miy wax pour recadrer waat situation yi moom moo dul lëm ci élection yi et ba léegi yooyu yëpp acteurs yi dëgg-dëgg kenn gisagu leen feeñikuñu c'est-à-dire ba ma doon wax bu njëkk am na ay militants yu yeewi yu ma doon attaqué partout jégalu ma sama bopp sax parce que xam naa ma li ma gis gisuñu ko Yacine man moustachid laa tey laa ma ma ma soog a wax boog ci péete sax ci wàllu politique donte féete moom fenn ci wàllu politique kon ba doon am fu may par parparloo ma faral yeewi mais affaire bi du par principe la du ñu jouer ak ci kaw électeurs yi di leen nax di jouer ci kaw Sénégal yi di leen nax te nax googu laa wax ni génnuñu ci ba léegi ñu toog ba yàgg Déthié Fall am sañ-sañ en tant que en tant que kii mandataire national ah mandataire am accès directement ci list supérieure bu Benno Bokk Yaakaar gis ci 43e ak 44e ni ñaari jigéen ñoo fa tegaloo mu déclaré waat ko. gis est-ce gis baax li ma la wax. Mhm. Yacine jubal xoj ci dem ci liste benn bokk yaakaar ci liste supérieure ba pour xooli fa vers quarante troisième ak quarante quatrième. Mhm. ñu ni kon list ba dootul valide. fan la bind ni liste bi suppléant bi dafay jàll titulaire bi du jàll. titulaire bi day jàll suppléant bi du jàll fan la ko bind. fan. l'un ne <laughs> non on de liste complète.